yaa himmata cheikh ihduri lana bi haada almahdari faltatifi bi nazratin tati lana bi zafari euh, kon ñu ñëw ci àggale téere biñ nekkoon doon ko firi te mooy bughyatul li sharhi munyatil murid bu mawlaana al arabi ibn saaih tey ñu war a commencer ci page 114 ci dirasa wa tahqiq bu ustaaz muhammad raadi ganoun radiallahu anhu tey ñu war a commencé kon wa yakfi fi kamaali adabihi maa awliyaa illahi taala xadduhu ala taadimihim wa tawqirihim ahyaan kaanu aw amwaatan wa adamu musaamaxatihi fi listihdaai bihim walistihaanati biqadrihim wa kaana yanha man yaskunu bi jiwaari waaxidin minhum an yamudda rijlayhi ila jihatihi walaw addaahu dalika ila muxaalafati ma jarat bihi alaadatu fi nawmi nnaasi fi maxallihim ka an yajcala ra'sahu ila baabil beyti mathala laa yaxfulu an dalika radiallahu anhu abada mawlaana al arabi ibnu saaih di wax ba tey ci sayidna cheikh radiallahu anhu teggin bi nga xam ne am na ko surtout rawatina ci góor yàlla yi nga xam ne yépp xam na leen moom Seydina Cheikh am na ci ñoom teggin bu mat sëkk mu ne wayak fii doy na fii kamaali adabihi ci matuk tegginam moom Seydina Cheikh maa awliyaa illaahi ànd ak wëliyu yàlla yi taala yàlla mu kawe mi doy na ci xadduhu ñaax gim doon ñaax ala taadimihim ci màggal leen wa tawqiirihim ak weg leen axyaan moo xam way dund lañ kaanu nekk nañ am amwaatan wala ñu faatu lañ wa adamu musaamaxatihi ak ñàkk eh, jéggaleem filistihdaa ci di yëj mooy di mbëllee di ñaawal bihim ci ñoom wali yuy wal ak doyadal bi qadrihim ci seen dayo wa kaana nekkoon na yenn haa doon tere man yaskunu ku dëkkoon bi jiwaari waaxidin ci eh, wetu maanaam ci wàllu maanaam ku dëkkaale daal bi jiwaar dégg nga mooy maanaam nekk dëkkandoo ci kenn ci nitu yàlla yi maanaam ku dëkk moom wa kaana ne kon nag da nga naan kaana nekkoon na yéen xaa doon tere man yaskunu ku dëkkoon bi jiwaari waaxidin ci wetu kenn minhum ci jom nitu yàlla yi an da ci muy tàllal rijlayhi ñaari tànkam ilaa jihatihi jëm ci wàllu wëliyu bi fa mu nekk walaw addaahu donte loolu doy ko walaw addaahu donte da koy yóbbee zalika loolu ilaa mu xaalafati ma jëm ci mu wuteek la nga xam ne jarat daw na bihi ci moom al aadatu aada fii nawmi naasi ci nelawu nit ñi fii maxallihim ci seen place yi ka an yajaala niki mu def rasuhu boppam ala baabil bayti ci buntu kër gi masalan ci misaal ci exemple moom daal Seydina Cheikh kon laa fulu daawul sàggan an zalika ci di leen tere loolu radiya yàlla gërëm allahu yàlla anhu ci moom daawu ci sàggan abadan mukk mu ne moom moom Mawlana Arab ibn Saaih radiyallahu anhu wax ne doy na sëkk ci tegginu Seydina Cheikh bi mu amoon digganteem ak yeneen góor yàlla yi mooy puus bi mu doon puus taalibeem yi tout le temps ci ñuy màggal ak di wekk nitu yàlla yi moo xam ñu dund lañ moo xam ñu dundul lañ te Seydina Cheikh daawul jégale mukk koo xam ne da ngay ñàkkee teggin wala ngay doye dal wala ngay yéjj di ñaawal di mbëlee di lu muy wax fii di sànni xeer di wax ay wax yu ñaaw di ko jëmale ci awliyaa yi daaw ko nangu koo xam ne itam dëkkoon nga ci wetu kër walla foo xam ne daal ab wëlu yi mu ngi fa dëkk wala ñu denc ko fa sax moo xam mu ngi dund moo xam dundul naa Cheikh daawul permettre mukk taalibe boobu muy tàllal ñaari tànkam muy jëm ci direction wu këru wëlu yi boobu fa mu ne mu ne donte loolu sax da koy yóbbee ci mu wuute ak waa dëkk ba aada bi ñu amoon ci nelaw xëy na su fekkoon bu ñuy nelaw euh, liñ amoon habitude mooy ne seen tànk yi dafa war dafa war a jëm ci direction boobu wëliw bi nekk Seydina Cheikh sax daan na poussé nit ki ne ko su fekkee ni sax seen waa kër ak seen waa dëkk noonu bu ñuy nelaw noonu la ñuy jublu yow changel yow fexeel ba say tànk bu mu jëm ci kër wëliw boobu nit ki mu ne ko léegi yow tourneel jëlal sa bopp nga def ko mu jëm ci direction wëliw bi mais bul jël sa tànk mu jëm fa mu ne Seydina Cheikh loolu daaw ci sàggan mukk radiallahu taala anhu mu ne moom Mawlaana al Arabi ibnu Saaih mu dellu wax ne waxat axbara nii xabaare na ma baadul afaadili lenn ci ñu gën ñi ñu baax ñi min ayaani ashaabihi ci sangu ay saxaaba Seydina Cheikh radi yàlla gërëm allahu yàlla ci moom te kim ci jublu mooy Seyd Tayib as-Sufyaani ne annahu ne moom kat ittafaqat dafa dëppoo lahu ñeel ko as sukkunaa dëkkee bi daarin ci ab kër goo xam ne mu jaawiratin bu bu bu dëkkaale la moom kër googu li darihi mawlana idris eh, dégg nga ci wala nga ni mu jaawiratin bu dend li darihi mawlana idris ci maanaam bàmmeel ci rawdu eh, mawlaay idris radee yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom loolu amoon ala ahdi cheikh ci dundu seydina cheikh radee yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci seydina cheikh wa kaana nekkoon al baytu kër ga al muaddu ba di ba ñu préparé dégg nga euh, dégg nga wala bala buñ lim li sukk naa ñeel dëkk min tilka daari ci boobule kër muqaabilan nekkoon kër gu jàkkaarloo li darihil muazzam ñeel bàmmeelu wali boobu nga xam ne bàmmeel bu mag la lama alama ba mu xamalee nag a cheikh naa cheikh radi yàlla gërëm allahu yàlla anhu ci bi zalika ci loolu azamahu sayidna cheikh rëyal mbir mi xaayatal i'zaami ci daytal gu rëyal maanaam mbir mu nekk lu rëy ci moom lu màgg li am na min laazimi man naama ndax dafa bokkoon ci liy taqoo kiy nelaw bi zaalikal bayti ci boobu la nekk wala ci boobu la kër an yamudda ci mu tàllal rijlayhi ñaari tànkam ila jihati darihi mu jëm ci wàllu bàmmeelu wulli boobu al abraki bu barkeel bi si tayib asufyaan yi nee na daf ko wax moom mawlaana al arabi bu saayih ne ko dafa amoon ay jamono moom mu dëkkoon ci kër goo xam ne moo taqaloo ak euh, fi ñu denc Mawlaay Idris mu ne te li nekkoon problème bi foofu mooy foofu soo xasee ba nekk il faut que maanaam comme que kër gi dafa jàkkaarloo ak rawdu bi boo fa nekkee donc daanaka dafa taqook moom sax daanaka donc soo fa nekkee dina am ay moment yoo xam ne xëy na euh, di par inattention say tànk mën na jublu ci raw bi wala leneen ak leneen maanaam daal kenn mënul moytu tout le temps boo dëkkee foofu ngay am looy moytu ci euh, dégg nga sa diggante ak waliyu bi ñu denc foofu ndax ñaari kër yi ndax fi ñu denc waliyu bi ak kër gi dafa taxaloo mu ne waaye loolu bi mu ko waxee Seydina Cheikh Seydina Cheikh bi dafa nekk lu lu rëy ci moom lu màgg ci moom ndaxte problème bi mooy euh, ku dëkk foofu mënoo ñàkk tàllal say ñaari tànk mu mu jëm ci ci bàmmeelu boobu waaye bi loolu amee summa akkada mu feddali radiya yàlla gërëm allahu yàlla fu ci moom moom Seydina Cheikh mu feddali ala saahibi ci saxaabaam boobu al mazkur buñ tudd te mooy Seyd Tayb as Sufyaani an ci mu bañ a tàllal rijlayhi ñaari tànkam ila naaxiyati darihi jëm ci wàllu rawdu boobu bàmmeel boobu ñu denc Mawlaaya Idris fii naw min du ci nelaw wala yaqadatin du caagi ne ci ñàkk nelaw ci en état de veille Seydina Cheikh doon feddali di ko wax tout le temps nekku ko na éviter di tàllal ay tànkam muy jëm ci rawdu boobu ñu denc Mawlaa Idris moo xam ci nelaw la moo xam ci ñàkk nelaw la wa baada muddatin ci ginnaaw ab temps ab durée yasiratin bu tuuti udxilat duggaleef na ab daaru kër ga al mazkurat bi ñu tuddoon fil masjidi ci jumaa ji al idris yi gee ko jóg Mawlaa Idris fa kaana nekkoon baadul muhibbina lenn ci way soppe yi yaraa doon gis ne anna zalika loolu am te mooy ñu jël kër gi mu bokk ci jumaa Mawlaa jàkka Mawlaa Idris ne loolu min asari taxarruki himmati cheikh mi ngi amee ci jeexitu yëngatu yitte seydina cheikh li zalika ñeel dégg darix boobu wala ñeel ngir teggin gi mu am ci ñoom te wala booda loolu sorewul fi ma raahu ci li gis haadal muhibbu gi lay aji sopp indama fat indaman ci képp koo xam ne fataxa ubbi na allaahu yàlla basiratahu gis-gisu xolam wa razaqahu ko al imaana mu am imaan mu gëm alkaamila gëm gu mat bi karamaati awliyaa illaahi ci kéemtaanu wëliyu yàlla yi taala yàlla ba kowe mi wa alhamahu te yàlla yenkewel ko mooy mu sànni xam-xam ci xolam yenkewel ko lan ak tasdiqa dëggal bi anal asyaa ci ne mbir yëpp tan failu dañuy jëfu dañuy réaliser wu bi li taxarruki himamihim ci yëngatu seen yitte ñoom nitu yàlla yi alawaal yi seen yitte yu kawe ya bi izni mawla ci ndigalu eh, mawlal mawaali ci bi izni mawlal mawaali ci ndigalu kilifay mbooleem jaam yi subhaanahu tudd na mag sellam wa taala te kawe na moom yàlla mu wax fi lu am solo mu ne ginnaaw bi ko naa Cheikh teree loolu biñ toogee quelque temps rek yàggul mu gis ne fexe nañ ba kër googu ñu boole ko ci rawdu bi rawdu moom Mawlaay eh, Idris mu ne lenn ci soppe yi dafa dafa gisoon ne loolu li tax mu am mooy Seydina Cheikh yitteem boobu mu amoon ci di bañ taalibeem boobu di tàllal ay tànkam di ko jëmale ci rawdu boobu loolu moo tax yitteem boobu moom la yàlla wuyu ba tax finalement ñu jël kër gi mu bokk ci rawdu bi mooy nag képp koo xam ne yàlla ubbi na sa xool te wërsëgal nga gëm karaama yi wala yu di def ak dëggal leen di nga xam ne mboole mbir yi li koy jëf li koy li koy réaliser mooy yitte yi nga xam ne góor yàlla yi ñoom am nañ ko te loolu ñi ngi koy defee ci seen diggalu borom lii lu am solo la ndax ñu bari dañoo yaakaar Euh, parce que dafa pas-pas boo xam ne boo ko jàppee day doy waar cest à que nit ki su jàppee ni maanaam lépp yàllaa koy def bu ca jàppee ni kenn mënul dara dara dara dara c'est-à-dire que li ma jublu ci loolu mooy mu yaa yaakaar ni mbir yi amul ay asbaab cest à loolu moom xamul parce que boo nee yàlla mooy def lépp loolu kenn werantewul ne lu wér la waaye nag yàlla lépp lu muy def du koy jaarale ci ay asbaab asbaab yi daf cee bokk ñaan ñaan yi daf cee bokk li koy particulariser ñaan bi bàyyeekoo ci wëliyu bu yàlla nangul kooku ñaanam bëriwaat na lu muy nangoo donte loolu kese du ci critère ndaxte yàlla dara tënku ko waaye kon wëliyu bu ñaanee yàlla nangu def dara kon nangul ko rek xam ni yàlla moo ko nangul eh, bu boobaa mën nga ne yàlla def na waaye nag jaaral na ko ci ñaanu wala ci loxo wëliyu tel moo tax mm, dañoo gëm ne ci waa tasawuf ni mbir yi yàlla da koy réaliser waaye da koy jaarale ci yitte góor yàlla yi mbir yi di réaliser wu kon indiwaat na lu am solo wane Seydina Cheikh ni nga xam noonu la fonkee yeneen awliya yi ndax Mawlaa Idris bi c'est mu ngi nekkoon bien avant Seydina Cheikh kon nag moom du Tijaan ndax bala ngaa nekk Tijaan fekkee jamono Seydina Cheikh waaye terewul ànd ak loolu yépp da ngay gis ne Seydina Cheikh ku ko ormaaloon loon xattaa taalibeem ci nelawam sax mu koy wax ne ko bul tàllal say tànk muy jëm ci rawdu boo xam ne ñu ngi fa denc Mawlaay Idris kooku ci màggal góor yàlla yi la bokk mu ne nag xaasa mbir maa ngi nii walaw tatabaanaa buñ fi nekkoon di topp maa la lañ toxalee ani anil mu jëlee ci jëlee ko ci sëriñ si radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhum ci ñoom fii xaasal baabi ci bile buntu te mooy buntu teggin wastaw ab naa te ñu sàkkoo matal zikrama tudd la nga xam ne ittasafa bihi melawoo na ci sayiduna suñu sang te mooy sayiduna cheikh radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu seydina cheikh min saniyil aadaabi ci way kawe ci ay teggin su fekkoon ñu ngi jéem jéem a indi lépp day la xaraj naa giñ naa ne danañ génn ilaa xaddil itnaa bi jëm ci dem ci dégg limitu xaabaabal danañ mujj nag dem di xaabaabal al itnaab mooy al mubaalaxatu rek da ngay dem ba mbir mi nga ëppal ci maa ànnal xasd ànd ak ni lañ jublu innama huwa li am ba des daal mooy al ilmaamu xam bi shay in ci dara mimma ci loo xam ne asa xëy na an na ci mu nekk li naaziri ñeel kiy xool fii haasal kitaabi ci bile téere tanbihan di ab yee wa tazkiratan ak fàttali wa ianatan ak dimbali lahu ñeel ko alaama ca la nga xam ne huwa moom bi sadadihi ñu ci jubluwaayam bi sadadihi mu ci jubluwaayam min fahmi mi ci dégg masala question yi yi tourne autour dégg nga ci haasal nazm bilee nosee bi la xasida te mooy xasida wuti ak tijaani ibnu baaba bi kon iaanatan la waaye wa tafsiratan ak xamal ko ba mu xam-xam bu leer wallahu yàlla taala eh, yàlla mu kawe mi rek al mustaanu ci moom la ndimbal ne mooy kiy dimbalee waale hite nekk na ci moom tukkulaanu wéeru ci yàlla kese la ñuy wéeru subhaanahu tudd na mag sellam moom yàlla mu ne nag bu ñu fi nekkoon bëgg di toxal nit yàlla yi la ñu ci ñoom ci mbirum Euh, teggin ak di indi li Seydina Cheikh radiyallahu taala li liñ toxalee ci moom ci wàllu teggin mu ne kon boo moytul dañuy mujjee xaabaabal dañuy génn sax ci liñ newoon ànd li liñ jublu ci fii rek mooy téere bi mooy yee nit ki ak dimbali ko fàttali ko ngir mu xam waaye lii en réalité lii objectif téere bi mooy ñu dugg ci nasmu bi te mooy mu nitul murid euh, dégg nga bu Tijaan Ibnu Baaba jàngal taaliba bi mu xam loolu mu lañ ci jublu waaye yii bala ngaa ne naam nefa il faut que nga xam li ñuy wax lan la mu indi nag benn ilxaq ilxaq mooy benn rajo dégg nga muy dolli ci biir dégg nga téere bi ci biir matlab bi al matlabu saalis dafa am ilxaq ba mu ci def ilxaq mooy dabaatal mooy raju bara mu ne ilxaq euh, mimma yanbaghi bokk na ci li yell an yan darija ci mu nasu fii haadal matlabi ci bile sàkkuteef wa yan saaqatam dugg ci biir maa mooy la nga xam ne xakaaxu nettali na ko kan moo ko nettali mooy imam as-Sahruradi fin awaarif ci awaariful maarif ani shibli jëlee ko ci imam ashibli radiya yàlla na gërëm allahu yàlla an taala yàlla mu ko mi anhu ci imam ashibli min qawlihi ci wax jëm wax imam shibli dafa wax ne alin bi saatu eh, yaatu maanaa di def extension di yokk bil qawli ci wax ji ma xaqi ànd ak yàlla loolu de tarkul adabi mooy bàyyi teggin dafa wax ni boo nekkee ci wax ci muxaatab di wax di maanaam ci maanaam waxante bokk dégg nga sa digganteeg yàlla am xitaab dégg nga ci ma ñaan la wala ci lu mu mënti ne nga nekk fa nag ëppal di wax di exagérer mu ne loolu loolu bàyyi teggin la waaye nag mu ne yuridu dafa bëgg rahimahu yàlla na yërëm ko allahu yàlla taalaa yàlla mu kawe mi dafa bëgg di wax fii bisaati duaa i ci champ wu terrain wu ñaan wa talabi ak sàkku lii bu ko bu koy wax maanaam ci mbirum ñaan lay wax ak mbirum di sàkku dara ci yàlla xaala wax na fii haa ci dégg nga euh, ci awaariful maarif ba tey moo tax mu ne aani ah, li ma ci jublu mooy wax na ci al awaarif téere bi di awaariful maarif wax na ne wa lii daal yaxtasu dañ koo jagleel bi baadil axwaali ci yenn ci situation yi wal wal ashxaasi ak yenn ci jëmm yi ñenn ci jëmm yi duunal baax walis ñeneen ñi wa laysa ala itlaaqihi waaye nekkul ci joyal ko cest à nekkul luñ généraliser rek ne forcément euh, nit ki suy wax digganteem ak boroom nga warta am yaatu ci dara dafa war a tëju rek ndax teggin mu ne loolu nekkul luñ joyal ndax li anna allaha ngir naka yàlla taala yàlla mu kawe mi amara moo digle bi duwaa ci ñaan fii nag dafa wax lu am solo parce que imam Ashibli li muy wax mu ne li mu wax ne kiy wax digganteem ak boroomam su yaatalee mbir mi ba exagéré tuuti ci wax jéeg yooyu ñu mu ne loolu ñàkk teggin la mu ne dañuy xool dégg nga euh, situation bi nit ki toll ak nit ki mooy kan donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa am ñenn ñu ñu euh, cest am na ñenn ñoo xam ne war na mën a possible ci ñoom ak ñoo xam ne possibleul ci ñoom mu ne waaye lii nekkul loo xam ne dañ koy joyal généraliser ko ne ci ñëpp rek noonu la war a dem booy wax sa diggante ak sa borom mbir mu warta leer mooy ndax loolu mënta ne ndax yàlla moo ñu diggal ñu ñaan ko te ñaan dafa amoon ay condition intaha wax ji fii la yem wa wax na a cheikhu sëriñ ba zarruq Seydi Ahmad Zaro wax na ba tey radee yàlla na gërëm allahu yàlla antu ci moom baada zikrihi ci ginnaaw bi mu tuddee maa warada la rotoon fi xaqil xalil ci aqu Seydina Ibrahim alayhi yàlla nekk ci moom asalaatu jullit yàlla wasalaam ak salmalam xiina zujja jamono ñu sànnee bi ci moom fil man janiq ci sànniwukaayu safara ba al man janiq mooy lance feu bañ ko sànnee ca biir Euh, sànni sax yellul ci yonent nga ni rek mën nga ko wax ba maanaam xina zujja jamono ji ko dugalee bihi ci moom Seydina Ibrahim ñu dugal ko fil manjaniq ci sànniwukaayu safara ba fa mu dajeeg moom jibrilu maa moo ko téye alayhi yàlla nekk ci moom assalaamu jàmmug yàlla wa qaala lahu Seydina jibril ne ko alaka ndax daf laa ñeel xaajatun ab aaja ndax daf laa ñeel xaajatun ab aajo ah bi ko seydinaa jibril waxee loolu fa qaala mu wax moom seydinaa ibrahim lahu ñeel seydinaa jibril ne ko amma ilayka su fekkee ci yow la de aw awma benn aajo waaye wa amma ilallaahi su fekkee ci yàlla la fa balaa am naa ci moom aajo amma ilayka su fekkee ci yow la seydinaa jibril falaa awma benn aajo wa amma ilallaahi su fekkee ci yàlla la fa balaa waawaw am naa ci moom aajo fa qaala mu wax seydina jibril lahu ñeel seydina ibrahim ne ko isan kon kay fasalhu ñaanal yàlla laaj ko lu la neex qaala seydina ibrahim wax ko ne ko xas bi doy na ma min suaali ci sama laaj ilmuhu xam gim xam moom yàlla bi xaali ci sama état ci sama situation mu ne ko xam gi yàlla xam ci li ma ne rek doy na ma wëlis ma di ko ñaan bi nga xamee ni imam Zarruq nettali na loolu ba pare dafa wax maa la nga xam ne nasuhu texte bi mu ngi nii kon lii daf ko tudd bu pare doog a indi wax jii may waaj indi mooy wax ji mu wax ne wa moom daal tariqul aarifiina mooy yoonu nitu yàlla yi xam seen boroom inda taaduril asbaab ci ngantañ lu sabab yi cest boo demee ba sabab amatoo ko cest à amatoo fooy jaaree pour jot ci dara mu ne dangay def lan dangay bàyyi lépp sa borom ndax xam na sa xaal aani li mu si jublu mooy ardojo a dellu ilallaahi jëm ci yàlla taala yàlla mu koy bi listislaami ci wommatu ba tarkit talabi ak bàyyi sàkku bi xilaafi xaali qabuli mahalli bi xilaafi xaali qabulil mahalli ci wuteeg xaalu nangu place ba lil asbaab yi ñeel sabab yi ndax fa innal amala jëfee bi xaa ci adab asbaab yi ci sabab yi xiina isin ci jamono jooju mat lubun loolu luñ sàkku la fii nag mi ngi wax lu ama am solo mooy euh, wax ji nga xam ne Seydina Ibrahim wax na ko alayhi salaam wax ko ne ko man de xas euh, bi min suaalihi ilmuhu bi xaali wax ko ne ko man daal yàlla xam gim xam li ma nekk rek doy na wayus ma di ko ñaan mu ne loolu mooy yoonu nitu yàlla yi moom imam Zarruq mooy wax loolu Sidi Ahmad Zarruq ne na loolu mooy yoonu nitu yàlla yi ci jamono ji nga xamee ni amuñu ay sabab yu ñuy jaaree loolu mooy lan mooy bu ñu amul sabab dañuy jël lépp ñu joyal ko bàyyi ko ci yàlla ñu topp ñu maanaam ñu wommatu ci mbiru yàlla yi bàyyi yàlla mu tànnal leen waaye nag mu ne bokkul ci jaam bi nekk situation yoo xam ne sabab possible na fa ndax di nga nekk foo xam ne liggéey ñaan am na foo mën a jaar pour sabab lu ci mu ne su boobaa jëfee sabablu yi loolu dafa nekk loo xam ne lu ñuy sàkku la cest à lii li muy bañ mooy nit ki donc situation bu mu mënti ne boo ko waxee rek mën lépp bàyyi naa ko yàlla lim jublu ci loolu mooy ne moom dootul góorgóorlu dootul jaar ci benn sabab pour pour li muy wut sotti loolu day fekk ni sabab possibleul possibleul ndeke bu ñu la jàppee tey jii bu ñu la ay bu la ay yéeféer jàppoon takk la bëgg a dëgër nar laa rey te amul la dimbali foofu amoo sabab tu es mbir yi nga bàyyee ko ci loxo yàlla foofu al istislaam ngay def waaye su fekkee sabab possible na rek il faut nga jëfandikoo asbaab yi qaala wax na ba tey moom Sidi Ahmad Zaruq wax ne euh, walla ci ba tey ci awaariful maarif dafa ni waxtabir na nga réfléchir na nga xalam zaalika loolu bi amri ummi Moussa ci mbiru yaay yonent yàlla Moussa alayhi yàlla nekk ci Seydina Moussa assalaam jàmm yàlla réfléchiral ci mbiru yaay yonent yàlla Moussa bi ilqaa'ihi ci sànni gam ko sànni woon wala teg gam ko tegoon fil baxri ci géej gi mu ne lii settul yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna yaayam bi mu xamee ni su ko fa téewee rey mën na ko caa fekk dégg nga xamatul lu muy def lu mu def daf koo jël sànni ko wala mu def ko parce que baat yooyu baatu sànni dañ koy éviter ci euh, ab yonent moo tax tout le temps ñuy def peut-être ñu ñu jëfandikoo baat bu ko gën a teggine ci wax maanaam bi mu ko jëlee teg ko ci kaw géej gi ah foofu amul benn sabab bu mu doon mën a jaaree pour mucc ak doomam donc lu mu def wakkiir lu bàyyi lépp ci yàlla dégg nga dafa def wakkiir lu bàyyi lépp ci yàlla euh, loolu parce que taadurul asbaab moo am maanaam sabab lu sabab yi mu war a mën a jaaree pour mucc mais gisu ko li muy def kon mooy bàyyi lépp boromam euh, wa ijaabatil malaaykati ak tontu malaaka yi lil luut ñeel naa luut alayhi yàlla nekk ci moom assalaamu jàmm yàlla bi qawlihim ca wax dañ ko waxoon ne ko xad jaa a dikk na amru rabbika mbiru sa boroom lil muraajaate ci tontonteeg moom inda qawlihi ci wax jim doon wax li qawmihi ñeel aw nitam ne leen law an na lii ay waay su fekkoon mu ñeel ma bikum ci yéen quwatan kàttan Euh, fa huwa moom salawaatullaahi julleeg yàlla alayhi yàlla nekk ci moom araada dafa namm muqaabalatahum jaamaarloog ñoom bil asbaab bi ci sabab ya waaye fa uji ba ñu tontu ko bi nufuusil amri ci wëyug mbirum yàlla wa annahu ci ne moom kat laa maxal amul benn place laxaa ñeel ay asbaab euh, na Lut keroog bi nga xamee ni ay nitam namoon nañ ko bëgg koo jéema toroxal ci kanamu malaaka yi Eh, nga xam ne keroog li mu leen wax mooy law am na lii mu quwa ay waaye su ma moon kàttan ci yéen ba jëflanteeg yéen kon boobu foofu asbaab yi amatul parce que kon kàttan jum wut amu ko waaye malaaka yi tontu ko ne ko xat jaa amru rabbika sa mbiru borom dikk na bi mu defee istislaam bàyyee lépp boromam borom bi moom moo ñëw régler problème bi kon nag li mu bëggoon moom mooy jaamaarloo ñoom ci as ci ay asbaab waaye yàlla wan ko ne ko mbiram dikk na mu ne looloo tax ashaara mu junju annabi yu yonent bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wasallam te yàlla sëlmal ci moom yonent bi salaay sallam junju bi qawlihi ci wax ji wax ne yarxamu yàlla na yërëm allahu yàlla axi sama mbokk ma luutan sayiduna luut laqad kaana nekkoon na doon tàpp ilaa ruknin jëm ci ab ponk shadidin bu dëgër maanaam wala bu tar yonent bi salaam wax ji mu wax ne yàlla na yàlla yërëm yonent yàlla luut moom daal mi ngi doon jéem a jàppandu daal ci loo xam ne lu jafe la mais yonent saa sam li mu jublu fii mooy li mu bëggoon moom jëflanteeg aw nitam jaaree ko ci ay asbaab jaaree ko ci ay mbir yu mu mën a jaaree ba atteindre objectif am moo tax mu ne alaa maanaa ci maanaa anna taraxumahu ci ne yërëm gi mu doon yërëm moom yonent saa sallam alayhi ci naa Luut innama kaana loolu daal am na li zannihi ngir njort gi mu njortoon anal asbaaba ne sabab yi baqiya dafa des laxaa di leen ñeel mahallun ab place waaye nag laa kama fahima waxumoon ni mu ko déggee man koo xam ne laa xaqiqata amul benn xaqiqa benn xam-xamul ci yàlla yi bu nekk ca moom euh, mu ne yun saa salaam boo gisee mu doon wax naan yàlla yàlla yërëm Seydina euh, Luut mooy njott gi mu njottoon moom naa lut ne desoon na ay asbaab yu mu mën a mën a yu mu war a mën a jaar ba jëf jëflanteeg aw nitam mu ne looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi xamee loolu ci moom yonent bi sallallahu doon wax ne yàlla ko yàlla yërëm mu ne nag waaye bokkul ak li nga ne loolu la ko la ko dénk ñeneen ñoo xam ne xamuñ dara ci xam-xam nitu yàlla yi niñ ko yaakaaree su ma ginnaaw mu wax ne wat tawajjuhaatu jublu ya salaasatu ñett rek la maanaam fi ngay jaaree di jublu di jëm ci eh, jëm ci sa boroom mu ne ñett rek la ëwaluhaa ba ca njëkk at tawajjuhu mooy nga jublu bil istislaam yi dégg nga ci wommatu ci mbir yi maanaam mbir yi teew na yow looy def nga womatu rek ci mbir yi bàyyee lépp yàlla wa loolu nag inda taazuril asbaab mooy su fekkee nit maanaam sabab yi amuñu maanaam bu maanaam bu fekkee amoo foo jaaree pour say mbir dox Euh, nga jox lépp yàlla bàyyee ko ko boobaa nañ ko nangu kon nag loolu mooy bi njëkk ci tawajjuhaat yi mooy al nga wommatu ci mbir yi wa zalika loolu indi taaduril asbaab ci ngàntañ lu sabab yi kama taqaddama comme nim jiitoo woon loolu leeraloon nañ ko assaani ñaareel bi ab tawajjuhu mooy nga jublu ci yàlla bi su suaali ci ñaan wa talabi ak sàkku wa zalika loolu inda inshiraahil waqti mooy su waxtu wi yaatoo wa jarayaanihi waxtu bi di daw bil mu'taadi ca lañ baaxoo mu ne nag ñaareel bi mooy nga jublu ci yàlla ci di ko laaj dara di ko ñaan ak di sàkku dara mu ne loolu mooy su fekkee waxtu bi yaatu na ba pare mbir yi ni mu demee rek la demee woon maanaam euh, loolu possible na waaw maanaam su fekkee ne xat-xat am na ni ki nga nekkoon ci prison munoo loolu wala yeneen ak yeneen xew euh, su boobaa dégg kon waxtu bi nekkul ci aadam nekkul ci mbir yi ni mu baaxoo mel su boobaa kon yeneen condition day taxaw boobaa tam xëy na danga nga duggaat ci istislaam mu ne wa fii mawqifi tazkiri nafsi ak ci palaasu fàttali sa bopp bi liftiqaari ci ne da ngaa aajowoo jëm ci yàlla wali tiraari te da ngaa loru itay ba tey inda xaflatihaa ci sàgganu bakkan adit tawxiid yi walis mu wéetal borom ñi ki doon ba tey di fàttali sa bakkan ki ne ni ko dangaa aajowoo ci sa boroom ba pare ne ko dangaa loru jamono ji nga xam ne bakkan bi sàggan na ci wéetal gi mu war a wéetal boroomam aw yakunu wala mu nekk al bisaatu maanaam terrain bi nga nekk nekk bisaatu taalim maanaam terrain wu xamle aw tazkirin wala fàttali wa naxwihi ak yu mel ni moom kon loolu mooy euh, loolu mooy at tawajjuh dégg nga assaani maanaam soit day fekk ni waxtu bi yaatu na mel ni mu meloon euh, wala nga nekk ci place boo xam ne dangay ngay fàttali sa bopp ci jamono ji nga xam ne sa bakkan dafa sàggan ci tawxid di ko yee di ko wan ne ko da nga aajowoo loru ci sa borom wala soit mu nekk foo xam ne jàngale la ak fàttali asaalis ñetteel bi at tawajjuhu mooy jublu ci sa borom bi taaridi ci gaaral di nga gaaral maanaam li nga bëgg danga koy gaaral wa zalika loolu xiina yaxlibu mooy jamono ji nga xam ne noot na xusnu zanni rafetug njort wala iktifaawu ak doyloo bil ilmi ci xam-xam wa taxqiqu tawxiidi ak dëggal sa wéetal gi nga wéetal sa boroom wala istigaalu ak soxlawoo bi zikri ci tudd yàlla ka xawli seydina ibrahim comme waxu yonent yàlla ibrahim alayhi yàlla nekk ci moom assalaamu jàmm yàlla daf doon wax ne wallazi ci ki nga xam ne at mbaaw lay xemmem eh, an yaxafira lii ci mu jéggal ma xatiati sama ay bàkkaar noonu lañ ko mën a firee waaye ku xam lan mooy nubuwatu xam ni ab yonent du def bàkkaar loolu moom day leer waaye xatiati mën nga koo firee loolu eh, mais bu fekkee xam nga sens bi li ñuy wax rek maanaam istilaax boobu soo ko jëfandikoo dégg nga ci koo xam ne maanaam ki koy jëfandikoo su fekkee dafa jàpp ne dafa am bàkkaar comme bàkkaar yow ni nga ko amee kooku daganul muy wax baat boobu ci ko jëmale ci ab yonent waaye su ko xamee xëy na bu jëfandikoo beneen baat mu gën waaye itam la ba sa kon nag mën nga ne wallazi ci ki nga xam ne at atmau lay xemmeem an yaxafira lii ci mu jéggal ma xat yi sama ay rëcci rëcci yow ma diin ci bés bi yàlla fayante jëf yi waka xawli sayidna Muusa ak waxu yonent yàlla muusa alayhi salaam yàlla na jàmm nekk ci moom wax ji wax na rab bi yàlla inni man daal faqiirun ku aajowoo la ku laa li la nga xam ne anzalta wàcce nga ko ilay jëm ci man min xayrin ci yiw waaw kon fii gaaral na wax na li bëgg carrément wa ka xaw li nabiyi naa comme waxu yonent suñu yonent bi salla yàlla na julli allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te yàlla sëlmal ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne laa xinaa lii an aafiyatika laa xinan awma ak doylu lii ñeel ma an aafiyatika wali sa jàmmal yow yàlla ndax aafiyatu ko sa jàmmal aw sau bi moo gën a yaatu ci man lii kam mooy intahaa fii kalaamu cheikh zaruq waxu seydina zaruq radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom mu ne yonent bi saai sallam tam wax na ne yàlla may gi ngay may nit ki mu am jàmm man daal doyluwuma ci maanaam tout le temps damay yittewoo di soxlawoo nga may may jàmm ndax sa jàmm dafa yaatu ci man lii yëpp boo xoolee exemple yi mu joxe mooy ñoom li nga xam ne moom lañ sàkku ci seen borom tudd nañ ko maanaam wax nañ ko mu nekk lu leer nekkul loo xam ne dañ ko nëbb kon nag maanaam ñoom kon at def nañ at tawajjuh waaye bi taarid maanaam li ñuy wut ci seen borom dañ ko gaaral ndax boo xoolee yéen ci yàlla Ibrahim wax na moom li mu bëgg yàlla baa ko mooy ay xeeti aatam Eh, dégg nga boo ñëwee ci yontu yàlla Muusa moom wax na lu leer ne moom eh, dégg nga li nga xam ne li yàlla wàcce ci moom da koo soxla ci yiw yàlla li mu wàcce ci yiw dégg nga moom da koo yittewoo kon moom wax na li mu bëgg ci yàlla yonent bi salaay salaam itam aafiyatu la doon ci yàlla kon ñoom ci xaal bi ñu nekk ñu ngi woon ci at tawajjuh bi taarid kon loolu mooy ñetteelu jubluwaay bi mooy nag walaa yax faa nëbbuwul anna kulla tawajjuhin bépp jubluwaay li xaalin eh, ci ab situation aw waxtin wala ab waxtu huwa moom al adabu mooy teggin ba fii tilkal xaal ci boobule situation aw zalikal waxtu wala ci boobu waxtu lii nag wax ju am solo la parce que ñetti tawajjuhaat yi tawajjuh yi nga xam ne lim na leen bu njëkk bi mu ne loolu danga koy def ci istislaam beneen bi nekk ci as sual wa talab ñetteel bi nekk ci at taarid mu ne lii boo xoolee en réalité dafa am situwation yoo xam ne day demander bu nekk nga def ko mu ne waaye te ci moment yooyu bu ci nekk day am teggin teggin boo xam ne euh, waxtu bi laaj na ko teggin boo xam ne situation yi nga nekk tam laaj na ko maanaam du ne dafa am benn focalisation ci lenn ci tawajjuhaat yi bàyyi yeneen yi déedéet da ngay xool situation bi nga nekk ak waxtu bi nga nekk lan moo fa placé pour nga def ko nga def ko moo tax mu ne woon moo tax mu wax wax fii ne la yax faa nëbbuwul ànd kullu tawaj kulla tawajjuhin ci ne bépp dégg nga jubluwaay li xaalin ñeel ab situation ab waxtin wala ab waxt wa moom al adabu mooy teggin fii tilkal xaal ci la situation aw zalikal waxtu wala boobu waxtu wa bi haza ci lii nga xam ne naqal naahu toxal nañ ko ani cheikh bàyyi ko ca sëriñ ba zaruq sid ahmad zaruq radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci sid ahmad zaruq yazharu ci lay feeñee maa la nga xam ne ashaara junju na ilayhi jëme ca moom ashibli imam ashibli rahimahu yàlla na yërëm ko allahu yàlla taala yaw yàlla mu kawe mi wa radiyate yàlla na yàlla gërëm anhu ci moom way warafu te ci lay la ñuy xamee annahu ne liy mbir laysa ala itlaqihi nekkul Euh, ala annahu ci ne maanaam lim wax moom imam ashibli laysa ala yi nekkul ci luñ joyal nekkul ci luñ généraliser noonu rek kama taqaddama comme ni mu jiitoo an saahibil awaarif jóge ci borom awaariful maarif te mooy imam as-sahruradi nee na fii ngay comprendre ci li Sidi Ahmad Zarouk wax ci ngay comprendre ne imam ashibli li mu waxoon mooy lan al inbisaatu bil qawli ma al xaqi tarkul adab mu ne waxam jooju da comprendre ne dafa am situation bu taxoon mu ko nekkul loo xam ne da ko généraliser que ne tout le temps nit ki suy jublu ci boromam di ko ñaan day nekk koo xam ne rek du fa wax dara day bàyyi lépp boromam ndax teggit mu ne déedéet mu ne loolu dafa am ci situation bu mu ko doon waxee kon loolu mooy lan li nga ci jublu mooy ne kon imaam yi bi ñu ko laajee mu tontu loolu moom lim doon tontu mooy at tawajjuh ilallahi bil istislaam kon moom loolu la doon wax maanaam nit ki dafa war a def istislaam ci digganteem ak boromam ci cadre boobu loolu la tontu woon wax ne al inbisaatu bil qawli ma al xaqi tarkul adabi waaye newul lum généraliser ci mbooleem jublu yi nga xam ne nit ki mu ngi koy jublu ci boroomam mu ne na am waaw yaxtaaju dafa aajowoo at tawajjuhu jublu ci sa borom bi su suaali ci di ko ñaan wa talabi ak dégg nga di sàkku ci moom ay mbir dafay soxlawoo ilaa aadaab bin jëm ci ay teggin yoo xam ne taxussuhu da koy jagoo min bokk na ci teggin yooyu al ixlaasu sellal sellal ci jamono ji nga xam ne jamono ji ngay ñaan sa borom xaala wax na taala yàlla mu kawe mi ne ma umiru digaleefu leen illaa li yaabudu lu dul ñu jaamu allaha yàlla waaye muxlisiina mbir mu ñuy way sellal yàlla lim digal jaam yi mooy ñu jaamu ko waaye ñu sellal jaamu ko maanaam nit ki du jaam yàlla nu ko neex la koy defee qaala wax na ba tey fii tahdibil azkar ci téere bi tudd tahdibul azkar dafa wax ne wa ixlaasu duwaa yi sellal sa ñaan ilallaahi jëm ci yàlla taalaa jëw yàlla mu kawe mi an yuxlisa mooy mu sellal ad duwaa a ñaan bi amma walis la nga xam ne yashubuhu mën na jaxasoog moom minal xuzuzi ci ay cëru bakkan wa an yufrida ak ci mu wéetal allaha yàlla ta tabaaraka barkeel na wa taala te kawe na mu wéetal yàlla fil qasdi ci jublu buy jublu yàlla mu wéetal ko bi annahu ci ne moom yàlla almuti mooy kiy maye laa xayruhu du keneen mooy maye mu ne euh, teggin ba tey aju na ci jamono ji waa ji di jublu ci yàlla ci di ko ñaan ak di sàkku dara ci moom teggin yooyu bi ci njëkk mooy mu sellal ñaan gi mu ne ñaareel bi euh, mooy mu wéetal yàlla ba wane ci ñaanam ne yàlla man mi lay ñaan xam naa ne li may ñaan yow rekk ko am maanaam xam ne yàlla rek ay maye keneen du maye wa min ha bokk na ci an yatiye ci mu indi fii duaayi ci ñaanam bi ma ci loo xam ne yushiru day yëgle bi azamati rububiyati ci màggug borom bi màggug yàlla rububiyatoom mooy min xaysu kawnuhu dégg nga rab dégg nga mu ne loolu mu yëgle ko ba ñépp xam ne màggaayu dégg nga buur bi muy ñaan wa zillatil ubudiyati ak toroxlu ak njaamam moom maanaam mu wane ni moom jaam bi dafa torox yàlla dafa màgg xaala wax na ay cheikhu sëriñ ba zaruq sidi ahmad zaruq radi yàlla gërëm allahu yàlla anhu ci moom dafa waxoon ne kullu duaa in bépp ñaan boo xam ne laa yashuru du yëg saahibuhu boroom ñaan ba du yëg fii ci ñaan bi bi azamati rububiyati ci màggaayu nguuru yàlla wa zullil ubudiyati ak toroxuk ak njaamam moom fa huwa kooku de tal fa huwa ñaan googu talaa ubun ab folo imaam uh, Zarruq nee képp koo xam ne yaa ngi ñaan te jamono ji ngay ñaan yëgoo ni buur bi ngay ñaan mooy yàlla yàlla de buur bu màgg la nga yëg ne yow ab jaam nga bu toroxlu ci sa kanamu boroom te yow miy ñaan dangaa torox amuloo dara mu ne loolu fola ay caaxaan la waaw parce que munoo gëm ne dangaa ngaa torox amuloo ki ngay ñaan moom am na nga di ko ñaan ba pare bëgg wane ne yow da ngaa rëy loolu loolu ah loolu mënta ne c'est-à-dire loolu waxuma yàlla mais nit donc boo ko dee ñaan ba pare bëgg koon woon ne ko man li may li ma lay ñaan de toute façon voilà man soxlawuma ko ah wala nga wan ko ne ko man faalewuma la loolu li ngay li ngay wut ci moom doo ko am ah, ah. dugg walilahi masal ala wa bihi te ci lii ujiba la ñuy tontoo an adam intifaai kasirin ci ñàkk a jariñu nit ñu lu bari min annaasi ci nit ñi bil adiyati ci ñaan yi wal azkaari ak zikar yi assaxiixati alwaad yu wér ci dël giñ li maanaam yu wér ci dig giñ dig dara ci ñaan gi maanaam ñaan goo xam ne dañ ñaan gii ñaan gu wér la ku ci ku ko def di nga am lii mooy waad bi hmm? dégg moo tax mu ne wa bihi ci lii ujiba la ñuy tontoo an adaminti adamintifa i kasirin ci ñàkk jëriñu euh, ñu bari minan ci nit ñi bil addiyati ci ñaani wal azkaari ak zikari as saxihatil waadi yu wér ci ay dël yiñ ca dikk yu wér la bil ijaabati ci nangu al mujarabati yu ñu expérimenté maanaam yu ñu jëfandikoo nit ñaan ci mu nangu ñu xam ni ñaan gi lu lu ñu expérimenté la al mujarrabati naf yi yu ñu expérimenté ci njëriñ inda ahli siddiqi ci ñooñ dëggu wala ixlaas ak ñooñ sellal mu ne ni lii la ñuy tontoo maanaam parce que euh, ñen lay tontu mooy ñiy laaj ne par exemple nit mën na wax ne ah man de ñaan bii dañ ma ko jox mm, par exemple nga ne wali moo ma jox ñaan bii ne ma ñaan gi digg nañ ci ne ku ci ñaan lii ak lii dañ ko am te ñaan gi itam gis nañ ay nit ñoo xam ne ñaan nañ ko wut ca loolu yàlla may leen ko yow nga ñaan ko yàlla mayu la léegi loolu nan la mën a demee mu ne dalay tontu mu ne liy tontu li lay tontu mooy lii nga xam ne moom la ñu waxoon mooy ñaan gi dafa respecté wul aadab yi yow teggin yi nga war a jëflante sa borom mooy sellal ñaan gi mooy nga wéetal ne yàlla rek moo mën a maye ci ñaan googu itam nga wane ni yow jaam nga bu torox amoo dara wane ni ki ngay ñaan te mooy yàlla mooy buur moo mën lépp yooyu su dikkul ñaan gi ak lu mu am doole am doole boo ñaanee du nangu kon moo tax mu ne tontu na la foofu pour nga comprendre moo tax mu ne wa bihi ci lii nag ujiba la ñuy tontoo an adam intifaa i kasirin ci ñàkk jëriñu lu bari mina naas ci nit ñi bil adiyati ci ñaan yi wala azkaari ak zikar yi as saxihatil waadi yu wér ci lañ digee bil ijaabati ci nangu bil mujarabati al mujarabatil nafi ñaan yoo xam ne lu ñu expérimenté ci ci njëriñam la inda ahli sidqi ci ñooñ dëggu wal ixlaas ak ñooñ sellal kon lii lu leer la wa minha bokk na ci teggin yi ba tey al iktifaau doyloo bi ilmillaahi ci xamu yàlla taala yàlla mu kawe mi ma xusni zandi ànd ak rafetal sa njort bi ci yàlla wa di ak joyal mbir yi ilayhi jëm ci yàlla fi ijaabati ci nangu ga wal ataa yi ak ci maye ga bokk na ci mu ne lépp Euh, nit ki doylu ci jamonoy ñaanam bokk na ci teggin yi mu doylu xam-xamu yàlla rafet njort ci yàlla waa rafet njort ci yàlla jàpp yàlla lu baax la la la la la la dencal jooyal ci yàlla ci ne xam ne yàlla rek mën a nangu ñaan yàlla rek kay maye parce que rafet njort ci yàlla ñu bëri amuñu ko am na ñoo xam ne buñ sëqatee sax pour ñoom feebar bu garaaw dal na leen parce que tout le temps dañoo njort ne yàlla lu lu ñaaw la leen dencal kooku ñaaw njort ci sa boroom la yéen saa sallam neewoon na jaam yàlla de mi ngi fi ko jaam bi njort kon boo dee njort ci yàlla da ngay lu rafet lépp lu la dal dafa war a rafet yéen saa sana waxoon na ne yi gën a bon ci jikko yi mooy ñaaw njort ci yàlla ak ñaaw njort ci jaamu yàlla yi loolu lu mat a wattandiku la lu mat a wattandiku kon yàlla ñu yàlla may ñu rafet njort ci yàlla rafet njort ci jaamu yàlla yi mu wax ba tey ni waxat naqala solo na tuxal na a cheikhu sëriñ ba zaruq sid ahmad zaruq radiya yàlla na gërëm allahu yàlla anhu ci moom an baadihim ci lenn ci nitu yàlla yi annahu ne moom qaala dafa wax man lam yakun ku nekkul fi duwaayihi ci ñaanam ya taarikan di koy bàyyi lixtiyaarihi ak tànnam moom jaam bi radiyan di aji gërëm bi ixtiyaaril xaqi ci tànnuk yàlla taala yàlla mu kawe mi fa huwa kooku mustadraj mustadrajun kuñ jay la Seydi Ahmad Zarruq nee na jëlee na ci lenn ci nitu yàlla yi mu ne mu ne képp koo xam ne jamono ji muy ñaan bu fekkee ni bàyyiwut moom di jéem a tànnal boppam te bàyyi yàlla mu tànnal ko kooku kuñ jay la waaw te parce que lii moo tax loo tax istixaar am solo parce que yàlla il faut que nga bàyyi ko mu tànnal la maanaam parce que le problème bi mooy yow xamoo fi mbir yi di mujjee xam nga kii ñaan yàlla may ma lu ma amee oto ma dawal oto te xamut ne lii mu jëm mooy bu yoree oto bi dina am voyage boo xam ne ci la accidenté bakkanam rot ci wala mu amee ci ay gaañu gaañu kooku xamul finalité wu mbir yi moom soxlaam rek la xam moo tax jamono ji muy sàkku moom soxlaam rek la xam mu ne nag jamono ji ngay ñaan fexeel ba génn ci loolu yow fexeel ba nga tànnaloo yàlla bàyyil yàlla mu tànn la yow bul tànnal sa bopp dégg daal même man mi ngi bokk ci ña nga xam ne xii la waxeef na lahu ñeel ko ne ko iqdu na ngeen faj xaajatahu eh, aajoom fa indi ndax man yàlla akrahu dama sib an asmaa ci ma dégg sawtahu baatam lii lu doy waar la te lu te te yàlla nañ ci yàlla musal mu ne xeetu nit ñi nga xam ne ñoom Euh, dañuy jéem a tànnal mbir yi seen bopp duñ bàyyi yàlla mu tànnal leen dañoo bokk ci ñi nga xam ne yàlla ñoom jamono ji ñuy ñaan yàlla day wax malaaka yi ne leen gaaw leen ngeen fajal ko soxlaam ndax kii bëggatuma dégg baatam moo tax léeg-léeg ñaan gu a nangu ci yenn nit ñi la da nga fekk ku yées ku bon koo xam ne lu sax mu naan yàlla may ma bëggul yàlla bëggul mu wax ak moom su tàmbalee rek danaan malaaka yi gaaw leen ngeen jox ko ñaan li muy soxla jox leen ko ko ndax mu noppi ndax bëggatuma dégg baatam loolu yàlla ñu ci yàlla musal mu ne mu ne waxuwa ko moom waa ji mi man mi ngi bokk ci ñi nga xam ne xii leen waxu waxeef na ko ne iqdu maanaam yàlla mooy wax ne iqdu fajal leen ko xaajatahu aajoom fa indi man akrahu damaa sib an asmaa ci ma dégg saw sawtahu kàddoom am na sax ñoo xam ne noonu lañ mel mel ni président de la république am na ñoo xam ne buñ ko sax bëggee gis ak yooyu day laaj rek lu soxla nangam jox leen ko parce que bugg gis bugg ko gis buggul gis buggu ko gis buggul toog ak moom ci yenn nit ñi itam dana am dana am ñoo xam ne buñ bëggee buñ la bëggee gis sax boo moytuwul doo ko nangu da fexe rek liñ bëgg nga gaaw jox leen ko ndax ñu dem kon nag loolu yàlla nañ ci yàlla musal mu ne fa inkaana su fekkee dafa nekk maa axtiyaaril xaqi ànd ak tànnu yàlla miy dëgg subhaanahu tudd na mag sellam wa kawe na laa maa axtiyaarihi du caagi ne tànnam moom moom jaam bi li nafsihi ñe boppam kaana day nekk moom jaam bi mujaaban di kuñ nangul ñaanam waaye wa in lam yoxta même su fekkee joxuñu ko li muy sàkku ndax wal amaalu jëf yi bi xawaatimiha mi ngi amee ci seen finalité ci seen mujj mu nekk bu fekkee jaam bi noonu la mel maanaam di bàyyi yàlla mu tànnal ko bañ a tànnal boppam yàlla da koy nangul ñaanam donte donte li muy ñaan ci jamono jooju yàlla joxu ko ko mu ne lu tax mu ne ndax mbir yi ñu ngi ci finalité yàlla mën nga ko ñaan dara mu téye ko dencal na ko am na feneen fu mu la koy joxee du ne jëmmi li nga ñaan rek moom la yàlla yi nangul kon bunt bi bunt bu xaw a euh, jara bàyyi xel la ci wàllu ñaan ak jëflante jaam bi digganteem ak boroomam nit ki war na fexe ba invité bokk ci groupe boobu mu tuddoon nga xam ne bu ñaanee yàlla du bëgg a dégg seen baat danaan gaaw leen jox ko leen soxla ndax bëgguma dégg baatam waaye lii contraire bi am na mooy ñi nga xam ne seen sell ak seen baaxaay tax na buñ tàllalee seen loxo naan yàlla may ma yàlla danaan malaaka yi bu leen ko joxagum lim soxla bàyyi leen ko mu wax kii baatam daf maa neex loolu am na euh, boo ñëwee ci xaamis bi euh, c'est euh, oustaz Mouhamadou Raadi Ganu nettali na lu am solo li nga xam ne moo ñëw ci al ifadatul ahmadiya dégg nga saytab as nettali ko te boo boo euh, dégg nga boo ñëwee ba tey itam ci kashful xijaab euh, Seydi Ahmad Sukayrij maanaam c'est-à-dire li li li mu wax ci fii ci ci hamish bi euh, mooy ne Seydina Cheikh ñaanam yu bari maanaam da ko daan jëfandikoo ba accès guñ sax mais incha allah dañuy leeral lii nga xam ne suñ ci suñ ci jëmee lu duñ sonn mooy naa Cheikh Euh, ñaanam yu bari daan na fexe ba di ñaanal sax nit ki loo xam ne dana wuute ak li muy sàkku ci moom dana wuute ak li nit ki di sàkku ci moom comme li nga xamee ni noonu la amee ci euh, al ifaadatu al ahmadiya euh, Seydi Ahmad Sukayri ba tey nettali na ci dégg nga kashful xijaab ci bi muy tarjama Seydi Shahid al Wazzani dafa ni moom dafa mës a ñëw ci Seydina Cheikh bëgg naa Cheikh ñaanal ko al istiqaama mu ñaan naa Cheikh mu ñaanal ko toujours ak njub ak istiqaama mu ne naa Cheikh ne ko yàlla na la yàlla nangul ci ngëneelam euh, mu ne bi nga xamee ni naa Cheikh wax na ko loolu ah moom tam mu mu man cest mu insisté mu insisté ne ko yaa Seyd laaj Seydina Cheikh ne ko lan moo tax ñaanaloo ma al istiqaama naa Cheikh wax ko ne ko man yuridu l istiqaamati fi man yuridu l istiqaamata fi haza zamaani ka man yuridu an yabniya sullaman ila sama Seydina Cheikh ne ko gis nga jamono ji kuy ñaan istiqaama mooy koo xam ne dafa bëgg a jël benn échelle di ko tawax mu jëm asamaan loolu dafa mën a ne di construire échelle boo xam ne yaa ngi koy defar mu jëm asamaan loolu mënul ne euh, ginnaaw gi loolu ginnaaw bi nga xamee ne loolu am na mu wax ne man yuridu listiqaamata fi haza zaman ka man yuridu an yabniya sulaman ila sama fa aada alayhi talaba listiqaamati min jadid ah bi insisté ñaanaat ko moom Seydina Cheikh ne ko dafa bëgg amal istiqaama euh, Seydina Cheikh ne ko qultu laka allahu yaqbalu alayka bi fadlihi wa ridaahu kunta mustaqiman aw muwajjan mu ne ko man nee naa la yàlla na la yàlla nangul moo xam da am istiqaama moo xam amoo istiqaama moo xam dangaa jub moo xam da ngaa dëng yàlla na la yàlla nangul ndax isa aqbala bi fadlihi wa ridaahu laa yubaali subhaanahu bi istiqaamatika wala bi wijaajika mu ne ko gis nga yàlla bu la xasee ba nangul moom dootul xool ndax dëgg nga wala yow jub nga moom na la nangul rek yow loolu moo la war a yitteel maanaam waa ji mi ngi koy ñaan istiqaama pour pour yàlla defal ko istiqaama Seydina Cheikh moom ñaanal ko xabul ndax yàlla bu la nangulee moom dootul xool say jëf ndax baax na wala bon na mu ne wa baadama yastaqimu l insaanu fi hada zaman laa yajidu man ma am man yastaqimu sayyidina Cheikh na ko gis nga nit sax jamono ji bu jubee ba pare du sax ko du am comme àndal sax bu xasee ba am istiqaama du am comme àndal ci istiqaamatu ji kon nag yow ñaanal rek yàlla nangul la kon loolu noonu la ñëwee dafa wax ne euh, ñu liir ko benn yoon pour euh, ñi nga xam ne dañuy topp arab bi wa qaala al allaamatu sukayrij fi kitaabihi kashfi lhijaab dimna tarjamati sayidi alshahidi alwaldani ne wa xaasa sayidu huwa alladi talaba min sayidina radiallahu anhu adduaa bil istiqaama qaala lahu allahu yaqbalu alayka bi fadlihi wa ridaahu sababuhu kama fi kitaabi l ifaada anna bacda ahli lbeyti talabahu an yadduwa lahu bil istiqaamati wa qaala lahu allahu yaqbalu alayka bi fadlihi wa ridaahu fa suila limaza lam yaddu bil istiqaamati qaala radiallahu anhu man yuridu l istiqaamata fi hada zaman kaman yuridu an yabniya sullaman ila lsama fa aada alayhi talaba listiqaamati min jadid fa qaala lahu qultu laka allahu yaqbalu alayka bi fadlihi wa ridaahu kunta mustaqiman aw muwajjan ida aqbala bi fadlihi wa ridaahu laa yubaali subhaanahu bi istiqaamatika wala bi wijaajika wa baadama yastaqimu l insaanu fi hada zaman laa yajidu maa man yastaqimu kon loolu mooy wax ji bi nga xamee ne ab shérif ñëw na ci moom ne ko dama bëgg nga ñaanal ma istiqaama Seydina Cheikh ko yàlla na la yàlla nangul bi insisté ne ko dama bëgg nga ñaanal ma istiqaama Seydina Cheikh ne ko neenaal na yàlla na la yàlla nangul mu ne ko la moo tax ñaanaloo ma istiqaama Seydina Cheikh ne ko yàlla bu la nangulee boo xam am nga istiqaama wala amoo ko dalay nangul rek moom yàlla du faale loolu sax mu ne ko te nag jamono ji sax bu ne ba am istiqaama kan ngay àndal ci sa istiqaamatu bi kon loolu mooy lii tënk wax ji li muy wane mooy Seydina Cheikh mbir yi daf koy tànnloo boroomam kon yàlla nañu yàlla fayal Seydina Cheikh radiallahu taala anhu kon xam naa incha allah ñu yem ci dars bi ba dars bi di ñëw allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim